élection yi nga xamante ni moom moo fal président ci yi weesu Sénégal wane na ni ñoom li nu bëgg mooy réew mu soppeeku waaye li nu bëgg moom mooy réew mi gën a jëm kanam te loolu mënul am ci lu dul soppi li fi nekkoon indi fi lu yees ci loolu la ca ëpp ci peuple Sénégal jóg nanu dugg nañu ca urne ya ote nañu ba samp fi nguur gu bees wante yoon ba jëmoon sa loolu neewul nekkul woon yoon bu yomb yéen ñëpp seede ngeen li fi ay bakkan rot li fi yàqu ci ay matériel ñi nga xamante ni tey ji ñoo ngi nekk ay laago waaye xeex boobu yëpp peuple sénégalais ñoo ko àndoon xeex ka pour indi soppite moo tax la mouvement national patriotique gaal gi ni loolu dafa nekk li nga xam ne dañ ko war a wéyal waaye tamit dañ ko war a njoñ dañ ko war a aar ba loolu bañ a yàqoo suñuy loxo aar loolu nag mooy am assemblée national bi nga xamante ni lépp li nga xamante ni moo doon yaakaaru askan bi assemblée nationale boobu dana ko mën a taxawee looloo tax mouvement national patriotique gaal gi mi ngi oo képp kuy responsablem képp kuy militant am képp kuy sympathisant am fii ci réew mi ak ci bitim réew ñoom ñépp nu jóg oote list bi nga xamante nii mooy liste Pastef du mouvement présidentiel ci élection yi nga xamante ni moom nañu jëm mouvement national patriotique gaal gi mi ngi ciy toftal ni peuple sénégalais bi mi ngi leen di avertir ni am na ab euh, yoot ak pakkar ñi bi nga xamante ni benn kuréel gu nekk ci kaw génn Sénégal wala ay kuréel ñoo ngi koy waajal pour nangu assemblée nationale bi pour nangu espoir peuple bi loolu yëpp nañ ci bàyyi xel ñoo ngi oo ñëpp nanu ànd nanu booloo ba li nga xamante ni mooy ndam li buñ koy am mu nekk ndam lu mat wante ndam lu kawe. ci programme mu état bi ci deux mille moom mooy lu nu gisee lu ñuy tuddee vision lu ñuy séenu lu ñu yaakaar ni ci bépp jamono war na am lu nu def saytu lan ca jëlee jàllaat ci leneen loolu nag. dafa nekk tabax bi nga xamante ni état rek moomu ko Sénégal gi yépp ñoo ko moomandoo ndaxte bu nu fàtte mukk ni programme bi nga xam si ni moom référentiel bi mu mu mu ñëw euh, ay yoon la li nga xamante ni sotteegul dana am yeneen xalaat yu si ñëw toftalu yi nga xamante ni sax du bàyyeekoo ci ñi liggéey liggéey bi sénégalais bu nekk ca domaine ba nga nekk compétence ba nga am am nga sañ-sañu am loo yokk ci programme boobu jëm ci deux mille cinquante ndaxte programme boobu du programme gouvernement bi fi nekk tey du programme benn partie programme waa Sénégal la. mooy fexe ba programme bi jàll ci sénégalais yi ñu téel ko seen bopp daal di ko càmbar daal di ko critiquer daal di ko daal ni bu nu defoon lii moo gën. lii nañu yaakaar ni moo gën loolu yëpp day tax programme bi gën a taxaw gën a am place kenn ku nekk gis ci boppam Kaolack ñor na la mais Kaolack dafay dugg rek ci mouvement euh, dafay dugg rek ci sumb sumb bi nga xamante ni mooy sumb bu yaatu bi nga xam si mooy lu ci am mbir yi fa muy sooxee du ci programme bi fa muy sooxee lu ci ëpp moom mooy loxo ya war a doxal programme loxo yooyu bu nekkul loxo yu set loxo yu am yéene yu sell indil programme bi gën a rëy ci àddina programme boobu du dem fenn mais bu fekkee dafa nekk ci ay loxo yu am yéene pour réew mi ñu mën a fàtte seen bopp pour réew mi ñu mën a ñu xam si ne duñu xat-xat loo lu ma xam ni diw moom ma ko gën a mën ma bakka ak moom ak fu mu mën a bokk ndaxte ci da ci defaraat nanu nekk defaraat nag boo koy def fépp fu doole mën a jóge ak doole jooju couleur gu mën a am bu fekkee ni doole ju sell la doole ju sedd rek bokk nga te yaa moom programme bi ca loolu nag Kaolack kenn mënu ci seppi loxoom ndaxte ñoo bokkandoo Kaolack ak fi ñu dëkk gis ngeen ni mu mel gis ngeen li fi nekk amul benn réew Sénégal mënul dem sans Kaolack waaye tamit Kaolack soxla na ay doomam yi nga xamante ni wax dëgg yàlla euh, seen mbëggeel ci Kaolack ak seen taxawaay ci Kaolack war na nekk mbëggeel ak taxawaay bu mucc ayib.